Euh, salaamaaleykum man maa ngi tudd Aliou Mbodj nekk le responsable des jeunes ñu koy wax PASTEF au niveau de la commune de Thiès Nord. tey dañu daje woon fii euh, ci médina Fall pour lancer benn euh, concept bu bees bu ñu tuddee After Ndogou. parce que bi ñu demee ci élection locale trois mois avec les avant les élections dañoo duggoon ci kër yi waxtaan ak nit ñi yàlla def yàlla may ñu ndam bi nu demee ci élection législative ñu répété même schéma bi dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi yàlla def yàlla may ñu ndam ñu ñëw ci élection présidentielle. ñuy ndox du bàyyi yoonam dañuy fan jaaroon ba am am ndam incha allah rabi foofu la ñuy jaaraat yàlla def mu nekk ci koor euh, koor nekk contexte boo xamante ni situation bu xaw a difficile la parce que ñun dañuy woo ñun dañuy sonn euh, chaque jour la session communale dina organiser ay activités de caravane au niveau des quartiers yi nga xam xamante ni moo composé Thiès Nord. mais ñun les jeunes on a lancé un concept bu bees boo xamante ni moo tudd after ndogu chaque jour bu ñu ba pare à partir de 20 heures et demie la commune. dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi partager les spécimens euh, partager ak nit ñi le programme de Diomaye de la coalition Diomaye président pour préparer les élections présidentielles 2024. donc je pense que euh, jeunesse su Thiès Nord ci lii la leen yàgg xam fi lañ jaaroon ci élection locale fi lañ jaar ci élection euh, législative te lancé boobu dañu ko ne ci élection présidentielle et c'est l'occasion de lancer un appel à tous les jeunes de l'ensemble des commune de Thiès Est que euh, il nous reste que dix jours nous séparent de la victoire nañu jóg dugg ci kër yi nañu dem waxtaan ak nit ñi nañu sensibiliser nit ñi. Euh, ni ko le coordonnateur monsieur su lay Diop daan waxee euh, projet bi dafa laaj ñaar dafa laaj ñaq dafa laaj ñuqi-ñuqi ñaq bi mooy il faut que ñu jaay suñu ay nelaw jaay suñu temps dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi loolu nag ku koy def di nga ñaq dafa laaj ñuqi def ci sa alal mooy def ci sa alal. loolu am nga def ko ci mu jaral la nga paas ñëw fekkee activité yi mu jaral la nga paas dellu jënd t-shirt bu ñu wootee activité nga dem te kenn du la jox dara loolu mooy ñuqi ñuqi bi mooy ñuqi bi et je pense que ci loolu la ñuy xaar donc c' est l' ensemble c' est loolu moom moo am solo et euh, ici aujourd'hui à Médina Fall ñu ngi lancé le concept after ndogu bi nga xamante ni JPS moo ko initié au niveau de la commune de Thiès Nord et ñu ngi woo l' nga xamante ne ñoo nekk dans le parti muy projet PASTEF wala nekk dans le département de Thiès wala dans les autres communes ñu fekk si activités yi nga xamante ni les jeunes ñi ngi koy def mooy euh, bu ñu ndogoo ba pare ñu bàyyi salle de sport yi bu ñu ndogoo ba pare ñu bàyyi série yi nga xamante ni en fait amuluñu njariñ te bu ñu ndogoo ba pare ñu jaay suñu temps wàcc sur le terrain dugg waxtaan ak nit ñi sensibiliser nit ñi pour que ñu mën a xam dëgg dëgg dëgg que ni 10 jours c'est de la victoire et que c'est le moment où jamais ñu donc euh, li laa amoon ma ciy wax donc euh, di jaajëfal ñëpp. dina ko tàmbali tey fii ci Medina Fall dina ko continuer suba demain demee après demain à Medina Fall suñ ci paree dinañ defaat benn réunion d'évaluation et réunion d'évaluation boobu moo ñu mën a permettre ñu xam dañuy continuer à Medina Fall wala dañuy dem dans les autres quartiers merci beaucoup. voilà asalaamaaleykum euh, waa Sénégal asalaamaaleykum waa Thiès ñun la waa GPS Thiès man ma la Baye Serigne Sarr responsable chargé de l'organisation de la GPS Thiès Nord en l'accompagnement de l'ensemble des jeunes yi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo Medina tey nag comme ci contexte bi ñu nekk def ko laaj ndax dañoo nekk ci période boo xam ni élection la te campagne mooy gagné élection te ñun ku ñu xam xam ni yàgg nañ nekk ci démarche yu campagne te min nañ campagne te suñu campagne bi lenn lu dul porte porte sensibiliser la population à ce ñu préparer wu davantage pour dem jëli seen i carte d'identité pour dem préparer li nga xam ne moom mooy élection yi ak taxawaay bi ñu ci war a am donc initiative GPS Thiès noonu idée bi nga xam ni le coordonnateur euh, Mbodj moom moo ko initié mu nekk loo xam ñun ñoo ko bokk waxtaanee ko mu nekk loo xam ni moom lañ nar a dënmal fii ba élection yi ndax xool nañ ni askan bi dëgg dëgg dëgg bëgg nañ xam exactement c'est quoi le projet ndax xam nañ sax la mooy projet bi. moo taxoon tey ñu initier lii pour rek ñu mën a am temps bi nga xam ne tey koor dafa metti ndax mënoo di woor en même temps di campagne donc lii ñu dënmal xam nañ importance. bu mu toll ci sénégalais ndax liñ doon xeex durant 12 ans tey bu ñëwee ba mu des lu dul 10 jour war nañoo mën a sacrifier jël suñu temps jël suñu alal jël suñu mën-mën ak lu ñu mën ak lu ñu mënul au moins pour def li nga xam ne moom mooy campagne dugg ci population bi wax leen li nga xam ne moom mooy la projet du président Diomaye Faye ak le projet bi nga xam ne Pastef yàgg na ko prôné donc pour bañ a guddal rek dañuy wax ni na askan bi yëpp jóg tey ouverture bi mi ngi amee fii ci Medina lañ koy tàmbale te incha allahu rabi nañ dinañ dinañ dugg ci kër yëpp. dinañ waxtaan ak suñu yaay ak suñu papa yi di wax aussi la jeunesse ñi nga xam ne tey jii seen carte d'identité yi demaguñ koo jëli nañ dem sous préfecture ndax carte d'identité yi bëri na fa trop trop trop te ñu aussi dinañ leen accompagner ci lu bëree bëree bëri ku ci am problème dëkk Médina Fall il suffit juste de contacter benn membre bi nga xam ne JPS sa nekk dina la jàppale ba nga jot ci sa carte d'identité leen wax ne campagne bi suñu campagne waaye tamit seen campagne la voté et faire voter di wax ni rek loolu lañu suñu partie bi di di ex sant mais loolu aussi lañ rek lañ desal le président Ousmane Sonko kon di wax ni rek ñu ngi ci lancé bi teelu ouverture bi te incha allahu bi nii la nar a demee ba lépp jeex kon leen wax ni rek sa réew da nga ko war a dafa war a am loo xam ne da nga ko war a jaayante ak moom ndax ñun Sénégal mooy li nga xam ni mënuñu ko séddu ak kenn moom la ñu bokk waaye du ñu bàyyi benn minorité yor suñu alalu askan di ci def lu leen neex ñuy toog di seetaan mu des lu dul 10 jours pour ñu débarrassé wu ci loolu ñuy toog di seetaan kon askanu Sénégal lay woo askanu cees lay woo les la jeunesse thiessoise ñëpp nañ jug massivement préparer ces élections ñu dem voté ji le 24 mars incha allah incha allah rabi ñu gagné au premier tour ci barkeb Cheikhul Khadim. wa rahmatulah maa ngi nuyu waa Thiès Euh, comme ni ko sama naataango yi waxee ñun la waa gps ñun la ndawu Thiès euh, ñu bëggoon juste rek def suñu def suñu porte à porte pour pour préparer élection yi voilà may woo may woo sama mbokk jigéen yëpp may woo tamit sama mbokk yaay yi di woo di woo ñëpp daal képp kuy jigéen woo na woo nañ la voilà merci beaucoup